et mos soo cherché xam nga tey ngoone mu ngi ne. Mhm. Aly Ngouille Ndiaye mooy papaam. mooy léppam bu ñu ko doon may tey mooy taxaw. Mhm. cest à pour man boo amee relation moom Aly njaay Ndiaye. ministre de l'intérieur. ancien ministre de l'intérieur ancien ministre de léegi moom mooy agriculture. tey sa toog ak Macky Sall xëy na ci foofu la doon gën yombee ci début bi. Mhm. que période bi nga xamante ne coow li jug na lool. bu baax sax waaw. waaye Yves. di Yves man xam nga damay nit koo man damay bañ ba xëy dee parce que dama foog ne nit ki la nga moom dafa yelloo ñu jox la ko waaye bu nit di xaar gor buy xaar bañ koy laaj mm-hmm. eh maa la joxoon lii joxaar ma ko mm-hmm. nekkatul teraanga mm-hmm. président Macky Sall ñu mu recevoir ñëpp kenn gënu ma ci mu leen gënulee gënu ma ci te ba liggéey ñoom ñëpp ñu teg ci seen dëkk tey su ma demee tey ba sama njaboot mënumaa nekkaa ñoom est xam nga ne en 2019 sama sëy dafa tas na président Macky mooy sëy bu njëkk bi wala deuxième bi deuxième bi waaw bi ma sëy 13 dafa tas ma am si ñetti doom yu jigéen. Macky moo tax sëy bi président Macky Sall moo tax lan moo tax la ko tasee. war a dem campagne. Mhm. Fuuta. Mhm. sama borom kër dama doo dem. nga def na ma ne ko damay dem. Mhm. mu ne boo demee xamal ne fii amaatoo fu jëkk dama lay araamal man ne ko bu yeboo nga araamal ma waaye damay campagne ñu di président. ah yàlla moo ko santaane. waaw loolu yow ndigalu ndigalu ndigalu borom kër kon toppoo ko. waaw waaw ba tey xam nga ndax lan. boobu man gis naa ne man man ni du ma noot man nit du ma noot nit mm. du ma ne kaay fii ngay jaar lépp dañ waxtaan waxtaane sama kilifa la nag mm-hmm. certes mm-hmm. war naa koo mën a déggal mm-hmm. mais la nga xam ne ne mooy sama liggéey mooy la may def muy sama bëgg sama ngëm dara du dara lu ma ci am ndax ba may dem Fouta 2019 du kenn du Aly Ngouille Ndiaye mi ma lay wax sama monsieur le du Aliou Dembourou Sow du Farba Ngom du kenn kenn kenn ci ñoom ku ne jël naa un jox ko faatu da nga doon demee def muy sama bëgg sama ngëm-ngëm dara du dara lu ma ci am. ndax ba may dem Fouta 2019 du kenn. du Aly Ngouille Ndiaye mi ma lay wax sama monsieur le ministre. du Aliou Dembourou Sow. du ba Ngom du kenn kenn kenn ci ñoom ku ne jël naa un euro jox ko Fatou. Mhm. dara xaalis nga doon demee. barke Seydina Mouhamed. man li may gis la joxee xaalis moom léegi ñu mën a na ko xaalis man nag xoolal ma ci masa ba fi may waxaa yoon ne ma dama nga mhm. Mhm. bu ñu fii mhm. sama place fii suba da ngeen fii ne non même pas suba sax xam nga ne mën nañoo ñëw nañu dugg yor nañ numéro gars yi 2019 bi may dem maa demal maa demal sama bopp ak samay propre moyen mais ñaata nga dépensé woon xawmatuma lu ma dépensé parce que. un million booy dem non non yegguma foofu yëpp yegguma ay un million. Mhm. yegguma sax ay trois cent mille ku dee ak baamelam parce que man bi ma fiy jógee. Mhm. dama jël oto boobu daara nger bi ubbeegut. Mhm. da ngay jaari ji ba Ndar. lisaa wëndeelu ji def wëndeelu vaay vaay ba pare man maa ngi dëkk ca daane maay ba man ak Mauritanie cent franc ngay fay gaal. ok parce que xam nga loolu man ak Mauritanie mhm. cent franc ngay fay gaaj ñu nekk Mauritanie bu ñu xëyee dañuy yow suñu dëkk jaay ba pare ndugg ndugg añ ñibbi ñun suñu lépp presque Mauritanie mhm. donc nag ma dem bi ma demee mhm. sensibiliser la ak lépp mais sa jëkkër yaa ngi koy wax loolu aussi dafa dafa baax mu leer cest à bi ngay dugg ci politique xam na ne yow yaa ngi ci politique si parfois aussi côté boobu góor ñi dañ ciy xaw am problème ak seen ay jabar début bi dañ duñ wax dara ba nga engagé dem ba nekk à 100 pour cent ñu xëy na la bul demati loolu dëgg la parce que nit tam boo ko fekkee ci liggéeyam mm-hmm. yoon la nga mën ko comprendre accompagner ko ndax nit doo ko fekk ci liggéeyam nga ne ko dindi ko mais tam mm-hmm. mm-hmm. moo tax mu ne bul demaat yow nga dem mu ne boo demee amatoo fi baat non non maanaam xëy na boobu bëgg naa wane kilifteefam naa toog te yàgg nga yàgg nga di dem de say activité waxula dara doom bu ndaw amagul woon sa un an loolu moo taxoon mais man tamit mënu woon a gis loolu parce que man dama naan am na lu may xaar mhm. te nag macha allah je touche du bois du question dara mais mhm. man sunu dëkk mhm. yàlla dafa def dañ maa bëgg te dañ may déglu ok dama dañ maa bëgg te dañ may déglu te est-ce que ñu ngi lay déglu ba léegi tamit ba si wala fu mu ne nii tey dañ ma gën a mën a déglu tey dañ ma mën gis nga ngoone mm. man waa Fouta ñoo desoog man waaye man wàccoon ak ñoom d'accord man damaa wàccoog waa Fouta ci côté am anam yëpp. Mhm. mais mi ngi wax léegi Yves ne. Euh, ci campagne bi mooy 2012 dem nga liggéeyal président Macky lu am solo. ak 2019 2019 bi tamit euh, mhm. boobu léegi euh, gis nañu ñi nga xam ne mën naa ne. dañ naan Macky di rafet na sax ñu jox mhm. leen ndombo tànk ñu jox leen DG yenn jigéen ñi ñu jox leen maanaam benn poste boo xam ne am na mhm. ma caat mais boobu léegi yow lan nga am ci APR maanaam coow liñ ci def ak topp bi nga topp Macky Sall ak liñ ci daj yëpp quoi balaa ñu ñëw ci mouvement Fouta Tampi bi waaye